asalaamaaleykum mbooloo mi kenn ku nekk ñi ngi lay nuyu ci sa tuur ak ci sa sant di gërëm ñi fi teew ñëpp góor jigéen mag ndaw jeunesse bi ñoom ñëpp ñi ngi leen di gërëm di leen sant di leen wax kontaan nañu ci seen teewaay di gërëm waa ASC bi di gërëm ñi fi représenté Siré Dia loo faal ñi ngi leen di gërëm di leen sant ndax lii yëpp yéen la lii bañ ko dalee dox ak léegi même pas une semaine mais réponse répondre ngeen ñu ci di mu gën a rafetee ñu di ci kontaan tamit ndax sa koñ ki ko ja ki la ki la bëgg dong moo la ci mën a dimbale kon yéen wane ngeen seen bëggeel ci ñun mais ñu ni dinañu wane suñu fierté ci yéen incha allah ñu ngi leen di ñaan nag comme ni ñu waxee woon rek ndax ASC bi suñu gox la suñu koñ la ñun ñëpp ñoo ko bokk mais femme yaa ngi nii ñoom ñëpp am nañu lu ñu bëgg ku leen jàppale femme groupement yi ñu ñëpp ñu ngi toog munumaa lim su ma limee damay juum temps bi moo ko mayul kon kenn ku nekk damay jaar ci turam ak santam di gërëm ñëpp nag jeunesse baa ngi ne chemin bi bari na caali fii caali suñu koñ boo demee da ngay xuus ndox mi sa jeunes yi dama bëgg sax suñu paree ñu jaar ñu xool ndax taw boobu keroog ba tey nit ñi dañuy xuus gaay yi dem jàkka ja imaam bi fa la dëkkee mais day sol sabo yu gudd la ñuy sol di xuus ci ndox mi ba tey jii may wax ak yow ndox maa nga fa yoon du yoon loolu yëpp politicien yàgg na fi yàgg nañoo politique amul ku ñu jàppalewul mais ba ñu la jàppalee ba nga taxaw da nga ñoo wan ginnaaw suñu daal yëpp dafa dagg ci politique mais fi ñu toll nii nag ku ñuy doxal ku nekk dañ ciy bëgg a gis suñu bopp te incha allah ak Siré Dia man gëm naa ni ca kaw ca kanam gëm naa ni ca kaw ca kanam li ñuy sollicité rek mooy ñu jàppale ñu jàppale femmes yi femmes sonn nañu couverture baa ngi nii suñu doom yi fourniture yi ah. ñu jàppale ñu loolu lañ leen di ñaan faaloo pour yéen ñëpp délégation bu ngeen yeggee ngeen yeggee ñu ko DG DG yi jur bañ toogee moom vraiment lépp ci yéen la commencé mais terewul amoon nañ confiance amoon confiance moo tax ba ngeen fi jógee ñu commencé dox suñu dox bi ngeen bi ngeen DG par téléphone ñu waxaat moom gën a amaat confiance biñ toogaatee ak moom tamit gën a jàppaat confiance moo tax nag ma bëgg ñun ñëpp nañu jàpp nañu booloo ñu jàpp bu ñëpp bu ñu booloo jàpp incha allah day baax incha allah fii politicien bu ne dugg nag te lii mu fi def nag c'est la première fois pour muy leer mais nag dama bëgg nag mu gën a jàppale jigéen ñi ndax jigéen ñi sonn nañu wax dëgg fa yàlla ouverture yi suñu doom yi lépp problème yëpp mu ngi noonu su su su li nag dama bëgg ñu jóg avancé dugg ci ruq bii ñu filmer ko buñ ko filmer mu DG gis ko jàppale ñu ndax sonn nañu koñ bi taana amuñu fu ñu jaar bu tawee ñëpp am problème waaw wasalaam kontaan nañ daal. waaw xam nga ñàkk guddi gi. nañ paa boo xamante ne paa paa fii la def imaam bi fii la def. day xuus fii di dem jàkka ji di julli. loolu ci la jàppale. koñ bi dafa koñ lii lépp moom la. problème bi dal la ñu am des na fi ci ginnaw bo paré ni sama yoon a nit mom wax deug yalla bu la defalé teranga reun ba déwén ta bu xoko nenañ na lim say non boy lim ay nonam mën na la ci bolé di remercier encore une fois té mi ngi ni di waxat na nee li entrée la rek entrée rek la xamni si ni pour touti la rek la lo xamni ni lancer bu pour wa caali parce que xamna ni ASC e bi affaire bi jamp na mais le reste le le leen ko defal encore une ñu ànd ak Siré Dia jàppale Siré Dia mu jàppale Macky Sall wax dëgg yàlla ñu félir ko dès premier tour bi caali jëm ci kanam Sénégal jëm ci kanam. maa ngi mosuma dugg ci politique nag mosuma dugg ci politique c'est la première fois te damaa gis lu ma ko jaral te engagé wu naa gëm naa dinaa dem jusqu'au bout ndax dëgg yàlla incha allah waaw kay kon ñu jox enveloppe bi waa waa ASC bi. vraiment les responsables hommes et femmes jeunes vraiment de la base politique de Deye à Tchali. Mhm. En commençant tout d'abord par la coordinatrice qui s'appelle Ndjouk, vraiment, et tous les autres responsables. Vraiment, mhm. cette journée est une journée mémorable pour nous, mhm. parce que c'est l'entrée de Deye aussi dans un grand quartier. Et je j'ai derrière moi le centre Gabriel Njord, vraiment qui est le deuxième centre de Thiès Nord. Aujourd'hui, aussi le Deye avait déclaré au Thiessois et au Thiessois que ses ambitions à lui, son principal vraiment problème, son principal défi, c'était la réélection du président Maxal dès le premier tour. Hmm. Et actuellement, on est dans cette phase cruciale. Mais je dirais tout d'abord qu'il est confiant. Qu'il est confiant du bilan du président Maxal, mais qu'il est confiant du, rôle et de la mission que lui a confié le président Maxal à Thiès. Et vraiment, nous sommes tous ce qu'il a réussi à travers la jeunesse, à travers les femmes, à travers les ASA, en général les mouvements sportifs. Aujourd'hui, nous voilà à Tchali euh, euh, avec une sœur qui s'appelle Diouk, qui a pris l'initiative vraiment de mobiliser tout Tchali, vraiment, vraiment pour soutenir le DG avec des dizaines d'avec, avec beaucoup d'associations, avec l'association des jeunes Jakartaman, vraiment avec aussi des responsables qui sont là, des autres, vraiment qui sont déterminés au du pour soutenir euh, le président Maxal, pour la direction du président Maxal dès le premier tour. Et, euh, le DSR a signé comme mission de réunir tout Tchali et tout Petit Tchali. Et vraiment, ce que l'on a vu aujourd'hui, cette formalisation qu'elles ont qu'elle a réussi aussi à travers ce mouvement, nous avons l'impression que Tchali est en train de bouger auprès de, de la coalition de Nabokayakar. Et je tiens à le dire et à, le réitérer. À l'image de Djahou et des autres quartiers, le DSR s'est engagé à soutenir euh, Tchali, qui est un quartier qui a beaucoup de besoins. Parce que quand on parle de il y a des problèmes, quand on parle de la jeunesse qui, vraiment, qui ont un problème d'emploi, quand on parle des associations de jeunes qui, sont, en manque de soutien, mhm. quand on parle des femmes, vraiment, quand on a aujourd'hui presque 17 avec qui sont derrière et, et, les responsables qui sont là, qui réclament chaque jour financement, je leur dis que vraiment, elles sont les bienvenues. Mhm. L'homme l'homme de la situation, c'est le gars. Et il a promis qu'il va vous soutenir. Et il l'a dit devant votre responsable qui et il va le faire. Parce que le début, c'était l'ASC. Vous lui avez demandé de soutenir l'ASC. Je crois qu'il a réagi en moins d'une semaine. Il leur a remis un million de francs pour permettre de faire de bons résultats. mais aussi vraiment d'accomplir des actions, je dirais, culturelles. Parce que quand on parle d'une c'est une association sportive et culturelle. Et au-delà de ça aussi, vraiment, le DSIREDIA aussi compte vraiment sur Tchali et Petit Tchali pour aussi euh, vraiment permettre au président Maxal de gagner cette ville. Parce que le président Maxal le mérite. Mhm. Mais le bilan du DSC qu'on ne peut pas dissocier du bilan du président Maxal. Parce que Wolof n'est pas le boulet qui a euh, Vraiment, ce bilan, ce bilan pour permettre au président Macky de gagner cette ville. Car c'est un homme, c'est un homme vraiment qui a été aux côtés de la population thiessoise. Et maintenant, je dirais que l'heure du bilan sonnait. Entre lui et un homme qui a été toujours là, qui avait gagné ce centre lors des derniers législatives. Mais ce sont les habitants de Tchali qui l'ont dit. Ils n'ont rien vu ni entendu. C'est un quartier mal éclairé, qui a un problème d'assainissement et tant d'autres choses que vraiment la mairie de Thiès de fait qu'ils n'ont pas fait qui n'ont jamais fait et qu'ils ne le feront jamais. Tous vos problèmes, vous les habitants de Tchali, mhm. ayez confiance au DG Sireja, mais soutenez-le aussi politiquement. Le DG Sireja va résoudre vos problèmes. Et Inch'Allah, je le dis je réitère, pour le mandat du président Maxal, pour nous, c'est de l'histoire ancienne. Parce que aussi, Sireja l'a dit, mon reste. Inch'Allah, le président aura le dès le premier tour. Mais aussi, nous aussi, on le dit aux habitants de Tchali, on a un contrat moral d'un an lors des élections municipales qui vont venir. Tous vos problèmes que vous avez soulignés, qui ne dépendent pas du DG mhm. vraiment seront réglés quand le président aura un deuxième mandat dès le premier tour et que vous aurez élu le DG comme maire de la ville de Thiès. Et on en est optimiste qu'à travers Tchali, à travers les grands quartiers de Thiès, Diahao les petits Tchali, vu la mobilisation et l'engagement de ses responsables, on est confiant que Gabriel John va basculer avec la coalition Ben lors du président de la 24 Bon, avec le parrainage, je vous le dis, Père vraiment, vous savez que souvent on le dit, c'est pas parce que que, que, que DG peut-être, euh, c'est le champion de caisse, mais c'est une réalité. Euh, avec les inscriptions, c'était pareil. Avec la forte mobilisation de la base politique DG Sénégal. Aujourd'hui, avec le plan national, je le dis et je le réitère. DG Sénégal aussi, aujourd'hui, je ne parle pas de thiès ou de départ ou de la région. Le DG Sénégal est en train de parrainer au niveau national pour le président Maxal. Il n'y a pas une commune dans ce pays où des gens ne sont pas, ne sont pas sur le terrain du matin au soir pour permettre au président Maxal d'avoir 3 à 4 millions de parrainages. Et ce défi, il est fixé. Inch'Allah, il va le réussir. Pour Thiès, je n'ai pas avance de chiffres. C'est un travail de longue haleine. Mais je le dis ici. Ni je ne parle pas de l'accord coalition ni Réumi, ni un autre. Des Nora, ce que les signaux que des vont proposer au président Maxal. Inch'Allah Rabbi. Merci. merci waaw waaw damay tënk ma waa Thialy ci seen taxawaay ak seen engagement mobilisation bi ñu def tey aussi pour teeru waa kër Siré Dia euh, ki ma ci cité aussi seen la responsable ànd ceeg ñi ne ñi ñëpp ay responsable la ci biir parti bi mais si aussi di ñoo xam ne ay militants et sympathisants de l'APR la am lu ñu dëgmal biir Thialy mooy lan aussi yaatal base politique de si Dia biir Thialy parce que aussi politique dañuy wax ne ku yaatal daj boo dajib dëkk gañe ko te tey it foog naa ne noor bi tey fi desoon mooy caali te daj nañ ko tey parce que li tey ci responsable avec fi toog responsable groupement mobilisation jeunes yi ASC ngalam ni ñu gisee aussi joueurs yi ñëpp taxaw tey pour l'avenir on est confiant que aussi à Thiali vraiment nit ñi dañu taxaw kilifa yi dinañ taxaw jeunesse bi dinañ taxaw jigéen dinañ taxaw pour jàppale DG Siré Dia d'abord pour développement te loolu dañ ko raflé te ñoom ñoo ne ñañ doon jàppale defalu ñu leen ko ñoom dañ jàppale ba ñu leen jàppale ba pare élection passée gisuñu leen damay profité de l'occasion y a une ancienne députée bu fi nekk doomu caali la waaw Thialy li ñu wax ci moom neexuma aussi ñu wóolu koy mhm. jàppale askan jàppale jigéen ñi jàppale jeunesse bi jàppale mouvement nga ngeen ne yàlla def na ki ci mën dara saafara bi yàlla day seen yàlla ko kon aussi yéen ngeen jàppal ko ci politique politique mooy lan demal ko ci nit ñi waxtaan ñoom yaatal base politique am consolider ko fii nga xam ne mooy Gabriel ngeen sa élection jëm ngeen may day seen ndam lu rëy may ndam lu rëy président Macky loolu la yaakaar ci ngeen jël engagement boobu li ci Siré Dia war a ko ci taxaw leen ko bu ragal bu xam nga lu fi ne mooy ñu fi nekkoon defuñu fi daal ak yéen ñu fi ne mhm. def fi tey seen bëgg politique def fi loo xam nit musu ko fay mhm. kon loolu boo ñu ci déggee seen tànk caali dana mokk petit caali mokk de Siré Dia gagné Gabriel Ndione gagné petit caali président Macky Sall am deuxième mandat dès le premier tour ñu def ci rajo maire Thiès dem kanam. merci beaucoup parrainage fi ñu toll mooy euh, du wax Thiès dama naan Sénégal parce que comme déjà tey tey modeste la rek mais ñu fa leader de dimension nationale tey amul fooy dem ci Sénégal tey amul dëkk booy dem amul commune booy dem day si rajo ay nitam wàcc ci base bi chaque jour ko jëfi nekk terrain bi pour lan collecter parrainage aussi yu fiable euh, pour le président Macky parce que depuis président lancé day si rajo kon loolu biir Sénégal amul commune booy dem laa wax ñu ngi ci département Thiès région Thiès au niveau national DG Siré Dia ay nitam ñu ngi ci terrain bi matin au ñun à Thiès ñu ngi ci. te ma a ko fii incha allah signature yi suñ ko tegee cool yi day bëri rek gars yi ñuy wax dañuy wax rek kay jëf di siree di jëf rek mooy na fi def lu kenn deful na defal président Macky lu kenn lu kenn defalul te na dañu bokk ci ñuy fal président Macky Sall et dès le premier tour yàq na moom gëm-gëm la mais liñ naan du wax ay jëf moo ko may loolu tey ba tax Thiès ay nit di toog ne ñoom du ñu joxe seen lu loolu waa kër Siré Dia ñëw kooku fierté la ci ñun ndam la ci ñun ndax Siré Dia liggéey kon loolu aussi dañ ko bëgg a matérialiser ci élection yi jëm ku ne mois mois décembre vraiment Ndeye Siré Dia baatu record bi ñu dëgg suñu tànk nag jëm ci présidentielle parce que Thiès ville da doon yàq ci législative nax yi jeex na. Hmm. Thiès ville day basculer fii laa ko waxee ci ay journaliste hmm. en 2019 le 24 2019 à partir de Gabriel Ndione Thialy Thiès ville va basculer sur pour de la coalition Benno Bokk mais à travers Ndeye Siré de la poste. loolu ñu koy wax waa Thialy incha rabbi gëm-gëm te gis nañ ñi fi nekk ñu am pas-pas la ñu ay xale di ay jigéen yi fulla fayda ay kilifa yi am fulla ak fayda mhm. taxaw pour changer Thialy mhm. et pour changer ko Siré Dia ngeen di àndal changer ko bien sûr kon lii seen i coono pour mu dakk jàppal leen Siré Dia mu dakkal seen i coono yéen jàppal ko mu gagné Thiès je vous remercie